ngeen def ça va waaw ngeen def ça daa ma nekk voilà. chaise yi daa jeex chaise yi dafa jeex. salaamaaleykum kenn ngeen def waaw lu xew fii nii fii lu fi xew. xam nga lu fi xew nga ñëw jël chaise di la chaise. ah si Sénégal la di lu lépp loo xam ne nañ koy bokk. Hmm, ah, d'accord ah jàmm moo fi xew de. moo tax ma ñëw amu fu ma jëm man xaaral ñëw waxtaan fi eh, man almadi. almadi almadi Dakar yow. almadi waaw. foofu nga jógee ñëw fi. ko may dox nii rek pour ñibbi man xaaral ma leen fii moo xam ne jàmm ak salaam rek moo fi am xaaral toog fi tuuti tuuti. waaw waaw. allo Ibu Ndiaye man maa ngi ni Pikine Pikine laa nekk nii kay maa ngi Pikine de ah maa ngi subaa gis nga de ana affaire bi man na waaw li nga ma doon rek la waaw man na waa léegi man kañ day yow léegi ma xool doo ma ko andil maa ngi Pikine ni andil ma ko fii nii non waaw li ma war a jox noonu li ma waaw waaw non yamba bi yamba bi laay wax yamba bi sa néeg waaw mais est-ce que yamba bu baax mi nga am yow est-ce bu baax mi nga am. Ah, kilo rek. ah ah. xaaral branche sama écouteur daa am ñu ma toogal xaaral sama xaaral branche écouteur daa am ñu ma toogal. allo. ah. allo. allo oui. waaw ba bàyyi ma rappel. bu mënoo ma andil fii daa am ñu ma toogal li coupé maa lay owaat daa am ñu ma toogal. ay ay yàmbaay yu baax ak yu bon fii say morom nekkuñu fi. ay ay ay bagages yu muy jaay la su mel xarit moo koy jaay. waaw bu koy jaay nga di toog ci biir nit di wax naan. daf ma daf ma ko waroon livré nekkuma gaal ma ne ko maa ngi. mais sooy suñu yoon nekkuñu non booleewuma bo booleewuma ci de. waaw non bi moom mooy. fii say moo tax ma wax ko mu coupé après. jógal nga dem. ma ne man du ma sàmm de. mooy kii kii la wax am nag yoo xam ah. ma sàmm de. waaw ah, léegi comme ah, dañuy waxtaan may ñu ñu waxtaan dañuy waxtaan. boo bëree man waxtaan bi. waaw léegi xam nga léegi yow yow sa yoon nga nekkoon. yow nga dem doxi ci li nga nekkoon. ñaata ñaata hmm? respect ñuy toog sama fan la ko commencé. ma ne. comme danga ñëw pour waxtaan. baax leen baax. dama leen insolite la dama leen doon tooy rek caméra caché la rek bu ñuy def di kaf nii ak ci mbedd bi di waxtaan ak yow damay kaf rek te c'est la 2STV c'est la télévision. <laughs> c'est la télé chaque jour damay def insolite yi ci mbedd bi di tooy di gën di waxtaan ak waaye di kaf ak yow. waaw non xam nga problème bi moom mooy. <laughs> caméra baa ngi dële. waaw <laughs> mais bu ñu fekkee dañu toog nga ñëw di wax loolu mënul nekk sax wax